Bismillahirrahmanirrahim daan ñu ngi sant yalla bu baax di julli sayyidina seydina limaamul mahdi alayhi salatu wassalam di ñaan serif abdoulaye yalla nako fi yalla yagal ak sayidina al imam lay gépp mu yag jiite ñu yag top ci ginnaw yag dox ay ndigalam moo ñi nga xamantene di ay doomam ak sayidina al imam gi nekk wetam diko doxal lepp yalla na yalla defal leen jàmm ñu yag ak serigne Ablaay lol ah di ñaan wote sayidina al imam lay bi ñu jublu yàlla nañ ci yàlla defal ndam def ci sutura appel bu daan neex yàlla na ci bii dàq yàlla na ci yàlla def wér def ci xaalis bu bari ba lépp loo xamante ne war nañu ko taxawe ci diine Seydina Limaamu ak luy bégal Sëriñ Ablaay ak luy bégal njabootu Seydina Limaamu ak luy bégal Seydina Limaamul Mahdiyu ci wooteem bi yalla nañu yalla dimbali banu agali ko pikin nak am ci bés bu reuy di la neuf ñi ngi sant yalla di gi ñaan ñepp neen fekk ñu ci le 9 février fele ci xurunaar ci garage su Mauritanie ñi ngi wo kep ko xamantene ne wuyo lay ak ko ko wuyoowul ak kep koy julli ñi ngi lay wo ci sunu bés bobu trois heures lañ koy def Ismaïla Ndoye El Hadji Ismaïla Ndoye moo koy taxawee ci ndigalu njabootu Seydina Limaamu Laay ak lu axlu bayti Seydina Limaamu Laay bépp nag président d'honneur ba Seydina Mandione doomi Serif Abdallah moo koy taxawe ak rakkam yépp nekk ci ginnaawam kon ñu ngi leen di dalal di leen teeru di leen ñaanal yàlla mi am jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm ah foofu lay tërale sama kaddu ah di ko jox Mamadou Laye oh mu àggali mbir mi. ren nag defam am particularité boo xam te moo si nekk ren ñu fas yéene rendu hommage ñi nga xam ci ñoo nekkoon suñu biir te génn àdduna. ki si jiitu nous sommes ibrahim Diène président nous sommes représentant xalif imam Top si Seydika, top si Soare yaay nous sommes Diop Altine Sao, bolé si ñaari jambar yi nga xam ci ñu daan sommes ñom ci diiné ji muy suñu papa Assane Diène papa ah fas yéene si décorer ay jàmbaar yoo xam te ni wax dëgg yàlla ñoo taxaw woon diine ji surtout fii si pikin ku mel ni suñu yaay Seynabou Gueye ku mel ni suñu yaay Amin Ndiaye ku mel ni suñu yaay Guèye Sarr ku mel ni suñu yaay mère Kumba mère Ndey Kumba ku mel ni Seydina Diop jàmbaaru yàlla jooju ku mel ni Souleymane Ndiaye ñu koy wooyee Serigne Mbaaw sa Mbaaw ñooñu war nañ leen a décorer si bis boobu ñooñu war nañ leen décorer si bis boobu. di ñaan suñu borom yàlla na yàlla yóbbu si bis bi ak jàmm di woo jullit yëpp di leen woo si bis boobu daal ñu ngi si booje yàlla na yàlla may ndam bis bi nag ñu ngi ko darajaale Seydina moom Alassane Laye daaw ñu ngi ko darajaale woon Baye Seydi Thiaw ren nag Seydina moom Alassane Laye moom moom bis bi moom leen darajaale bis bi ñu ñaan suñu borom lépp luy xéewal ak i teranga yi nga xam ne moo lëkkaloog ay yiw wàcc si biir daayira bi wàcc si biir Pikine wàcc si axlu béyti bi yëpp wàcc si axlu Layeen gépp ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu cité jàmm allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa sallam